Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. waaw xam nga man loolu wax naa si ba taay tey Macky Sall su fekkoon dafa ànd ak ay nit te ñi mu àndal kenn munu ko cee remplacer kon dañoo war a xoolaat ay mbiram <laughs> yow ngay ànd ak nit nga am sa kër nekk boroom kër am ay doom tukki sa doom yi kenn mënu si gérer sa kër kenn mënul gérer dépense kenn mënu kon kon yow tekki woo dara de donc tey jii Macky ñi nekk ci gouvernement am. tey jii ñi mën ñi ko ñi ñi ci mën a téye réew mi mën naa ni presque bari nañ mais nag nit yi des fois ñoo naan diw dafa aspiré jël chaise diw wala diw mais moom ci ay waxam ci ay jëfam wanewu ko parce que bërki démb la def benn sortie parce que Amadou Ba moom lu muy communiqué bariwul gis naa keroog mu def mu gën a def sorti xamal ni moom ci ginnaaw Macky Sall la nekk li Macky bëgg lay def mooy président moo ko jox post bi mu yor moom lay àndal donc man dama maandu parce que dama ñemee dëgg ba nga xam ni du ma bëgg a waxal nit à sa place xam naa ni daal il est dans le gouvernement bi mu nekkee finance tey ji bi mu jógee finance Sénégal yëpp dañ jooy ni waroon na fa toog mu ñëw fii ministère affaire étrangères commencé ko révolutionner donc c' est quelqu'un boo xam ni c' est un léegi nag nit ñi tey ji borom bitigu mbagg boo gis magasin moo nekk ci xolam tey ji dama lay wax nii député yi ngay gis sax bu ñu sañoon nekk président mais néew yow Macky Sall mënul mënul mënul bañ kenn bëgg nekk président ci réew mi bien vrai que ni c'est le président de la République voilà. Hmm. loolu maa si njëkk a wax Sénégal man maa njëkk a génn dénoncer affaire yokk bi est-ce que comprendre la donc tey jii benn sénégalais àndul ci. ñu jël courant bi di ko yokk mais boo xoolee Macky Sall bi mu génnee man ci 31 boo wax ci affaire courant bi wax ñi nga xam ne ñoom la concerné yenn sociétés yu mag yi mooy ay genre ay SAR ay ICS yenn sociétés yu mag yi ñoom la ñu yokkal xam nga après comprendre naa parce que man tey jii dama def benn affaire meroon naa trop parce que bi ma bi ma man bi may bi may attaqué Senelec dama taxaw ñu indil ma fii facture 380 mille francs ci kër gi ma aalu mais sama bi bi mu ñëwee 33 000 donc kon man gëm naa ni <laughs> li ñu doon wax parce que dañu woon à partir du premier jan mois de janvier lay dugg en vigueur xam nga mais bi ma demee bi ñu ma expliqué comprendre naa ni donc Macky Sall li mu doon expliquer lu leer la donc ci société yu mag yi lañ yokk parce que tamit am naa ay yoo xam ne bénéfice yi ñuy def war nañ ci mën yokk ba nga xam ni dina am yenn sénégalais yi nga xam ne mënuñu amaguñu courant mooy di dëkk ci àll bi. parce que yokk boobu xaalis boobu lay jël investir ko pour ñu nekk ci àll bi parce que xam nga communication c' est très important moo tax premier conseil des ministres bi fi Macky Sall ñëwee dafa woo Makhtar Cissé woo DG rek leen communication bi ngeen def moo baaxul parce que da ngeen war a communiquer sénégalais yi xam lu tax yokk courant bi conserné wul ñi nga xam ni ñooy fay de à partir de quinze mille jëm trente cinq mille ñi mu concerné mooy ñi nga xam ni mooy les gros consommateurs. Mm. tey ji da ngay gis ay nit yoo xam ni. tey ji dañuy yor société boo xam ni il fait des bénéfices de milliards ba pare di fay ay milliards te dañuy sàcc sax courant ñi fi ñi fi gën a bari la ñoo daa ko toje courant est-ce que comprendre la bëgg léegi nag moo nin boobu ñoom dañ ni moom la jël dem ci gox yi gox goxaan yi nga xam ne amaguñu courant ñu mën leen wutal ay poto ba pare yeneen société yoo xam ne ñoom ñooy gagné marché ay genre comme du ma waxee plus c'est les comme Procalec comme yooyu ñoom ñooy gagné marché yi pour mën di électrifier yeneen parce que man mii léegi nii avant ngeen di ñëw loolu man fi ma tabax sama kër ci biir Dakar nekk te courant bi côté boobu li ko am na courant mais dafa am benn partie bu ndaw rek boo xam ne bi dugg ko fa bi ngeen di ñëw loolu laa doon voilà. loolu yàgg na ci réew boo demee Amérique sax opposants yi dañuy dañuy yooyu moom waxi ku daanu sareet la xam nga Ablaye Wade sage la. il a fait son temps xam nga mag mu am quatre-vingt-seize ans kooku dëgg dëgg na yàlla il est dépassé <laughs> xam nga ah, mais parce que mooy tey jii Ablaye Wade am na lu bëri loo xam ne tey jii man contre ma ko sage la Sénégal yëpp tey dafa am lu mu fi liggéey mais temps am passé na san <laughs> téeméeri at sa du ñaar fukki at du ñaar fukki fan est-ce la donc fi mu toll nii dañuy war a wax ci génération bu bees bi ñoom Macky Sall ñoom xam nga gars yi fii la nouvelle génération voilà xamul dara amul amul xam xamul dara mënul dara bëri wax di ji ñi c'est un menteur fenn rek lay def fenn rek parce que c'est un menteur xam nga man sum papa dama daa wax ni ma bàyyi fenn moo gën julli Ousmane Sonko lu mu wax du dëgg man dama am jabar mu nekk député mu ne député yi 1500 la ñuy fay imp c'est man sama sama bulletin de salaire jabar dama ko yor xam naa ñaata fay kon loolu day fenn du dëgg nga lu dëgg fenn la tudd que yow mënoo diriger dëkk ba pare nga ñëw taxaw fenn bu folaa noonu taxaw ni député yi 1500 la ñuy fay man sama jabar député ma yor bulletin de salaire am <laughs> du dëgg est-ce que la beneen bi ci topp mooy. c'est le politicien bi nga xam ne moo gën a inexpérimenté si si mosul a nekk DG mosul nekk ministre mu ngi door a nekk député te député sax pour mu nekk ko plus fort la jàlle député yëpp a jàll ba ñu dem ci mbalit bi jël desitu carte yi dajale ko pour mu nekk député plus fort la jàlle lan la jàlle Ousmane Sonko nekkul député d'office plus fort la jàlle député yëpp a jàll ba pare ñu dem ci bollu mbalit bi desitu carte yi nekk yooyu lañ dajale noonu pour mu nekk pur ca dimbali ko mu jàll mu gën ci bari wax nag gis nga xale yoo gis fii gis nga ay xale bu ñuy dox ci mbedd bi xale bi ci dàq fen moo ci ëpp bay rek est-ce la dama la bëgg expliquer Ousmane Sonko mënoo ñëw taxaw li ma lay wax rek benn foot bu mu def Guinée Bissau dañu def election am ku jël pay moo raw mais rawul parce que dañu war a dem deuxième tour bëgg xaalis moo tax mu dem xaritoo kook te kooku def ne bu gañee pouvoir bi day retracé waat frontière Sénégal ak Guinée Bissau te loolu mën nañ di guerre yow ngeen da nga aspiré diriger dëkk dem di ànd ak noonu réew mi ah yoon c'est man bokkuma ak sénégalais yi nga xam ne moom daf leen di nax sénégalais moo bëgg koy nettali dama la bëgg a poser benn encore une fois benn question ma koy poser sénégalais yi seetaan lii yëpp en 2012 bi nit ñi di xeex ak at Wade fu Ousmane Sonko nekkoon xamoon nga ko fu mu nekkoon kenn xamu ko woon boobu mu ngi ci système bi di am ay kër di am ay oto di régler problème am di liggéey di fayeeku lijjantiwul lu Sénégalais yi di xeex même fonk ko wax dama lay wax rek bi ñu defee enrichissement illicite ñu woo bu Ndiaye man fornaasi woowu bay ñu ne bu Ndiaye xaritam la le fait que ñu woo bu noonu affaire yooyu métti ko nga nekk ci biir gouvernement bi commencé nag loolu moo ko révolutionné mu commencé di génn ay secret d'état te yow nga nekk ci état di liggéey mais état da lay dàq état dàq ko mu dem créer parti moom xam naa la parti am warul tudd patriote les patriotes xam naa ne tudd parti faj mer la war a tudd parce que moom dafa mer dem créer dafa dafa dafa mer ngemb mais loolu la c'est man dama ko comprendre man dama comprendre c'est ñu bëri dañ defe dama ko bañ bañu ma ko il a le droit bëgg a diriger Sénégal mais man du ma nangu kuy nax sama ñoñ boo bëggee nax sama ñoñ damay taxaw politiciens yi bari nañ fi opposants yi bari nañ fi déggoo fi moo fekk kenn mais benn booy boo xam ne yow ñun ñoo la mag fop gën la yeewu man maa ko mag foofu di du ma moromam booy bu ndaw bëgg a ñëw senegal bëgg waaxu nit ñi ñëpp bëgg ko nangu parce que gars yi contre ne sénégalais moo bëggul numéro bi fi ab Senghor nekkee sénégalais dañu woon baaxul Abdou Diouf ñëw sénégalais ni baaxul Ablaye Wade ñëw sénégalais ni baaxul Macky Sall ñëw ñu ne baaxul kon moo baax ku faloogul Sénégal fekk faluwoo Sénégal ku faloogul ak moo baax dama moom moomu di wax noonu bu ñu ko faloon waaw noonu lañ ko doon waxe moom laa lay expliquer <laughs> voilà très bien c'est que ñoom bugguñu sax numéro te dëgg-dëgg neex yàlla man mi di wax ak yow billaahi du dara moo tax ma koy wax Macky liggéeykat la te ku yaru la li muy dégg gis nga Paul Kagame mi Sénégal africain yëpp jël di ko ki benn rapport moo génnee morceau clash ko mu tëj ko 10 ans <laughs> kooku dictateur la il a tué des gens pour ñëw pour accéder au pouvoir Macky Sall musta rey mbot mais sénégalais du ñu jël du ñu jël exemple si nit ku baax dama la bëgg a expliquer donc boobu Paul Kagame dafa bonde mais man de dalu Macky Sall ma ko gënal parce que musta rey nit est-ce que comprendre la reyul nit ba ñëw pouvoir dafa gagné démocratiquement dem dem deuxième mandat gagné waat est-ce que comprendre la bëgg a donc nit ñi tey jii dañu wooteel Macky Sall à 57 pour cent presque 60 pour cent gis nga Ousmane Sonko 15 pour cent yi wax ndàdde la jël ci élection yi moo jël ndàdde. voilà non dama bëgg dama bëgg li tax dama lay bëgg expliquer li tax Ousmane Sonko moo jël ndàdde loolu laa bëgg expliquer pour Sénégalais yëpp xam ko Madické Niang à un mois des élections la nekk candidat mënul gagné kooku ñëpp xam nañu mënul gagné parce que moom li li mu demee sax du parti benn beneen bi ci des mooy kii pire ñii nga naan daayira la ñii naan lii la yow ñi nga raw ñëpp sawaay <laughs> da dañ wax kon moom moo jël ndàdde Macky Sall moo jël P sa Seck jël deux Ousmane Sonko moo jël ndàdde parce que ñi mu raw non non ñi mu raw ñi mu raw man ak ñoom bu ñu demoon élection ñooy tolloo rek nañ waxante dëgg kon moom moo jël ndàdde il faut il faut li may wax lu garaaw laa lay wax il faut li ma lay wax nga dawal sa Ousmane Sonko moo jël ndàdde ci élection yi parce que euh, nu mu tudd encore une fois euh, Madické Niang à un mois des élections la nekk candidat kooku daa mën a gañe réew mi dañu wax mënul gañe keneen kii ñu ngi la yor nan lay gañe kon moom moo jël ndàdde moo jël ndàdde ah il faut que mu xam ni Macky Sall presque 60 pour cent la am 57 pour cent des sénégalais ñoo ko woteel quatre fois moom li mu am boo ko diviser par quatre Macky rawee na ko quatre. quatre fois day moromam mais nga ñëw benn booy bu ndaw ñëw fii taxaw si dëgg bi rek diw sàcc la diw taje na fii kii sàcc et puis il par parle que d' doo ko dégg mu wax santé doo ko dégg mu wax agriculture doo ko dégg mu wax nu mu tudd tourisme parce nga ko dégg mu wax santé du wax yooyu moo ni rek affaire xaalis rek lay wax kii buñ ko joxee dëkk bi mu jaay ko. c'est man dama yeewu ci moom dama ko jàng jàng jàng ba mokk gis nga bu doon livre dama ko tëj jàng ko corruption fépp la am ci àddina bi dama dama bëgg nga deg moo bu baax man mi di wax yow damay tukki di dem j'ai fait minimum 34 pays dans le monde est-ce la dama ni corruption fépp la am mais nag luñ ko gën a mën a xeex man dama ci ànd mm-hmm. est-ce la nañ ko xeex man du ma ànd ci lu jubadi mais sénégalais est-ce que ne dama def tey benn exemple sénégalais du wane lu baax tey jii bu benn femme kennoon léegi def benn concours gagné gis na booy boobu di ñuy wax xuma lan te muy jàng arabe te mu demoon concours du monde gagné gagné alxuraan bi ah kooku noonu. promotion bi war ci moom xam nga promotion bi war ci moom dëggantaan booy bi légende la waroon doon defuñu ko mais bu ñëwoon benn femme def na taatu neen léegi nii taatu neen bi day siiw sénégalais ñoo koy paasante paj paj paj ku nekk jox ko sa morom waaye xool xool yow bëgguñu waxal nit lu baax est-ce que la loolu mooy ñun suñu problème yow mii tey ji ñii la gën a jege tey boo amoon musiba bu la dal ñoo ñoo koy dàq partagé barke borom Touba waxuma ko nag parce que dama ñoo ko daa partagé lu baax léegi nag loolu moo tax man pour ma neexoo ak yenn gars yi mënul nekk parce que man dëgg bi laay wax li ma sentir laay wax parce que man duma ma leb ameluma kenn bor du ma sàcc du ma fen du ma wurit du ma yàlla sama ñaari soxna la kan tey ji man bu ma dalee wax ba léegi kan moo mën a taxaw ni maam góor yi dooni sàcc la dooni góor jigéen la dooni def ma mel xaay loo ngay wax amul loo ma waxal parce que dama fexe ba suma live lu ma am doy na mu lu ma ñàkk muñ naa ko si loolu lañ ma yar ñu ngi koy waajal bu baax waaw bu baax sax voilà parce que man xam nga man maa way nii nit soo ko teralee tëral ko man dama fexe ba nga xam ni tëngéej dama fa def lii sa Ablaye Sadji bi maa ko defaraat sama xaalis jardin public bi maa fa def lumière xale yi maa leen may ay bourse bërki dem couverture ah, maladie universelle mille booy laa jël école bi ma doon jànge en charge man du ma sàmba àll li ma am dama ko delloowaat tëngéej su comprendre la ay góor la ay lébu la ñu tëngéej man la ñu àndal te incha allah mairie bi maa koy gañe loolu moom leer na parce que tëngéej gars yi li ma metti ba tax ma nekk kandidaa mooy Tëngéej gars yi dañ ko bëgg a def wutukaayu xaalis ay tool mënuñ jël ñun on benn canal boo xam ni quatorze kilomètres de canaux à ciel ouvert tey ji gis na le Nil bi ngay dégg Égypte ñu naan ñu naan ñu naan firaw na fa la xote woon du géej de canal la <laughs> canal bu mag la man dem naa ba foofu valeur bi ñu jox foofu suñ ko joxoon suñu canal bi dañuy am lu bari mais maire yi ñëw jël kanaal bi suul ko jël ay cantine tabax ñi moom cantine yi dëkk ñu tëngeej ñii Louga lañ dëkk ñii xom fan lañu dëkk ay ñaambur ay ñaambur ñaambur lañ dañu ñëw tabax cantine jaay mbalit bi nekk seen buntu cantine sax duñ ko dindi tëngeej ay tool lañu ko def wutukaay xaalis loolu dafa loolu dafa war a deñ anarchie bi fa am dafa war a deñ yow ban dëkk nga gis si àddina nawet ñëw mu taw ay lab ay fas di lab lu toll ni fas ni mu njoole fas di lab loolu ñëpp gis nañ ko te loolu sama buntu kër maam la sama yaay ku ko jur buntu këram la xewe loolu <laughs> foofu laa daan fooy ma nekkee xale donc ñun loolu moo ñu révolutionné ñëwuñu parce que dañu bëgg tur ñëwuñu parce que dañu bëgg xaalis ñëwuñu parce que dañu bëgg lii yooyu yëpp tur ak yooyu yëpp yàlla may nañ ko ba pare lu ñu soxla mooy lu ñu defal suñu dëkk parce que affaire u mairie amul école bu ñu koy jàngee xamalal la relation tey jii mag Sall na la yore dëkk bi génn tukki dem wuti ay convention pour dëkk bi boo amee maire boo am ay relation mën a tukki indi ay investisseurs ñu investir dëkk bi dëkk bi développé te ñu loolu yàlla may nañu ko loo rek la. ñu bay la nga tàggatoo. merci beaucoup kontaan naa maa ngi bu ñu fa waxee nag loo xam ni xam nga jubluñ ci lu lu ñaawa ah. donc ñun dañuy wax rek pour wax dëgg bi nu mu demee encore une fois Ousmane Sonko bu fekkee yaa ngi seetaan lii man contre ma la li ngay def rek laay wax muy nekk artiste boo xam ne vraiment ndaanaan la artiste engagé li ko ñor mooy Sénégal li ko ñor mooy Rufisque ga mu dëkk li ko ñor aussi mooy sénégalais yi nekk ci jàmm lépp tegu ci yoon donc maam Goor Diazaka de son vrai nom Vox Art ñëwoon seet ko ci émission à travers Vox TV Equivox TV maa ngi leen di gërëm di leen sant naan leen merci beaucoup à la prochaine. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.